Thank you. Thank

gần nhà cùng ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant mbokk dëkkandoo yëpp di leen sant baax a baax a baax ndax amul seen fay si day ñax ak li ko wër boo limee xam ngaa am loo bàyyi mais si day ñax li ko wër yëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax leen jox seen bu baax a baax a baax li gërëm di nuyu si garab bii nii maa ngi leen a baax a baax a baax ak bële ba mu seen fay suba ngoon bu dee ko njëkk ñu ngi daw ñoom dama leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm parce que maa leen sant bu baax a baax encore une fois di sant sama staff Kelle Dóor staff Kelle Dóor yëpp maa leen sant bu baax a baax a baax a baax ñoom ñëpp maa leen sant di leen gërëm di nuyu sama waa église ñi fi teew yëpp maa leen di ziar baax a baax ki ci gën a mag ak ki ci gën a ndaw di jël numéro bi sama tête de fii Mbarré Abdoulaye ñoo ko fi. xëy na daa am lu ko téye di ko ñaanal ci bis bi mu jëm yàlla may ko ci ndam bu baax a baax a baax ak ñi topp ci ginnaawam yëpp ak ku am combat ku amagul combat yëpp ak mobile mu nga xam ne mi ngi jigéen yu am na combat ak yeneen ñi nga xam ñoom Moussa ñoom ñëpp nañ combat leen ñaanal yàlla may leen bu baax a baax a baax di nuyu sama président fan si club bi Abdoulaye Diallo maa ngi koy nuyu baax a a baax di nuyu borom tegaay bi Papis ko ndeysaan maa bu baax a baax a baax di ko sant bu baax a baax di ko aw ma fayam waaw di nuyu ma nuyoo bi am na solo ñii xam nga lu leen fi bàyyi dañoo bëgg nga libéré leen dara doon ñii nee nañ dafa am loo leen tamal nga nekk fi di nuyoo est ce que nuyoo boobu moom nga yóbbu stade wala déet mais préparé ñi ko mënu ñoo parce que ñi ak ñoom ñoo tax ñu mën maa ko ak ñoom mënu ñu baax a baax ndax ñoom ñoo tax li ma mënoon mën ko di nuyu sama papa yëpp di jëlee ci nuyoo bi sama papa Ousmane Diouf ak Assane ak Bouba ak seen i soxna ñoom ñëpp maa leen nuyu bu baax a baax a baax a baax nuyu sama papa Ousmane Diouf mi nga ba Guinée Bissau maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax père Ousmane Diouf di ko wax comme encore une fois béyti ñë ma njaaku pour nuyu sama mbokk njaaku yëpp ñoom heure ka kombe yëpp maa leen nuyu bu baax a baax béyti ñë ma njaaku ma di nuyu ñu ñaanal leen bu baax lan lañ mën a xaar sa diggante ak Ousmane Mbaye dañoo gis nga combat yi nuroo ba mel sa adversaire toll nañ ci jàng li nga xam ni moom ngay indi est-ce que Clédor am na yeneen clé yu mu préparé pour indi ko ci làmb ak li nga xamante ni souvent ma déggee sa adversaire mu mel ni mi ngi lay jàng sa adversaire toujours mi ngi wax ne benn clé boobu ngay daan est-ce que clé boobu ngay yóbbu stade wala da nga ko bëgg a daan ci benn loolu moom ay wax yu ay wax la rek waaye damay sant ñaar ci man ñaar mooy président écurie bi ñaati ak Ousmane Ousseynou Seck ñëpp maa leen nuyu bu baax a baax di nuyu suñu papa Demba Gueye bu baax a baax a baax ndax dañoo jëlal ñaari bologu bee suñu papa Demba Gueye dañoo jëlal ñaari bologu bee ñoo koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm xoolal ngeen tàjjal ma ko baax a baax suñu papa Demba Gueye waaw bu ñu jugee ma ñëw ci sa question boobu noonu di la wax ne xew bu mag bi ñëwagul man li may liggéey bu bëri waajoo ji noonu démb seeraan naa ko bu baax. waaw loolu dégg nga message bi mu lancé. kooku dafa bëgg a wax ba cere ba ñeexam sax yàpp te rayul dara loolu mun na nekk. moom cere la dëkk nag. benn jaay maa lay nuyu dama ne kooku dafa bëgg a wax ba ñeexam sax yàpp te rayul dara loolu mun na nekk. la dëkk. ku mu rey. non bis bu nekk mi ngi rey. ma ne dama ne ko béykat bu njëkk sax bopp. béykat bu njëkk sax bopp. yoo waaw sant yàlla sant yàlla baax a baax a baax a baax. léegi nag mooy àndal nañu léegi mu demee ñëpp dina gën a am ndox. sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax a baax comme que lamb dañoo demoon bay dox fan la ci toll Clédor ku ko xam ni mën na ba nga xamante ne bokk na ci ñi dàq mobilisé ci biir dëkk bi. loolu bu ñu koy wax dañ koy sant ji comme ni gën a encouragé bu baax a baax di leen wax ni lii ngeen teg seen tànk rek foofu la di soññ suñu moromi mbër yi suñu rakk yi suñu doom yi ngeen yéen tamit ngeen jéem a installé wu ngeen gën a doon am parce que lii am na solo ci la am parce que xorom la ci kenn doon ñii sa diggante ak ñoom waaw ñii ñii mën ak ñoom ay famille lañu walaay lancim ñii awuma seen fay ñii wax dëgg yàlla ñii moom moom mënu ma wax sax ñoom yàlla xam na ko ndax dañ may defal ku lay defal loo mënul moom da nga koy fay loo xam ne ku la lebal guddi daal ku la yowal kenn daal da nga koy fay guddi dañuy daan Ousmane Mbaye ba toog ci kaw laay di fayee. yaakaaroon ni micro yi da laa kii kay fan si la wóor na mais Ousmane Mbaye nee na bu nga demee ba tëj barrière sa xel dina nekk ci leneen. Père Tambay dama ne ko démb damaa dégg ko ne ko njiin ma nga daan njiin njiin mi sa papa daan njiin a ko gën. moo ko mën kon nag kooku moo tax ma ne ko nag ma ma papa mbër la ma ko doon sa baay doon ku sa papa moroom baayam doom bi yaa ko mën nuyu xam naa ni dañuy wàccee suñuy kàddu foofu bu ko defee ñu jox champion bi mu jël kàddu yu mujj yi di remercier maanaam site internet yi nga xamante ni ak télévision yi déplacé wu ñëw fi di ñëw gërëm ñi nga xam ne ñooy seen i njiit buñ cee jiitalee ki nga xamante mooy la merveille TV suñu ko santee ak Baro mi nga xam ne moo fi ñëw ñooñu suñuy partenaire lañu ci Sidi Diakhaté production ndax lépp loo xamante ñu taxawal rek ñu ngi ciy ñu soxla leen di ñu ko jàppale bu ñu ko tegee waa DBS TV di nuyu Pape Mbengue suñu suñu frère di nuyu mboolem ku nekk ci kër ga di nuyu directeur général bi di nuyu ki nga xamante ne mooy Elhadji Malick Wade di sama directeur mooy di la directeur national bi nga xam mooy yoon Thiès TV nga xam ne télé boobu mooy télé gox bi di suñu télé te defe naa ne mooy télé bu àll bi dégg nga donc bu ñu bàyyi ci loolu rek dañ lay jox nga joxe Siré Dia ñoo leen sant bu baax a baax surtout Père Adir Ndiaye ndeysaan Père Adir amuñu fayam ndax day jël xaalis bu bëree bëree bëri dañu ko jox di sant Papis Ko mii nii waaw di sant arrêt Jakarta yëpp arrêt Jakarta yëpp waaw ba arrêt arrêt tali bu bees ñoom ñëpp maa leen sant baax a baax arrêt bu dépôt ak arrêt bii nii ci ginnaaw ñoom ñoo jiital moto yi arrêt arrêt ak arrêt Siré Bureau mooy élément Bambey nuyu waa Touba bu baax a baax a baax ñenn ci waa Touba maa ngi nuyu suñu Abou Mbacké mu bin Fallou maa ngi nuyu bin Fallou bin Mourla maa ngi nuyu baax a baax a baax suñu Modou Moussa Ba suñu Fallou suñu Mourla maa ngi nuyu baax a baax di nuyu waa Tamba képp koo bokkal bin Fallou bin Mourla maa ngi woo ci Tamba bi waa Daara maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax di jël ci nuyu bi maa ngi woo ñu ñëpp ñëpp ñu def ay ñaan combat bu baax a baax incha allah ku baax xew na lu xew ma Ousmane Ousmane bu yaroo ma duma ko ma ma ma duma ko ma bu réewee ma duma ko ma ray ko. jërëjëf mi ngi noonu ñoo ko déggandoo di leen jox rendez-vous le 6 mai. waa di ko doon waa di ko doon waa di ko doon waa di ko doon mi ngi woo waa Diamaguène mi ngi woo waa Tropical mi ngi woo waa Salma mi ngi woo ñëpp ma ne li ci nekk li duuf ci nag yi xajul ci jën lii kon dama leen di jox rendez-vous